mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu contentement ak mbégte la ñuy am saa su ci topp gi ngeen di topp suñuy programme fii ci Feeling Dakar TV actu daal di dikkaat ak yéen gannaaw ba ñu waree nag ñu ànd ak yéen ci buzz bi nga xamante ne rek jamono gi mooy def l'actualité phare au Sénégal ah, dañ koy door rek doomu Thione Ballago Seck moom Wally Ballago jamono gi mu nekk fële nga xamante ne rek mooy ca diwaanu Allemagne ah, week-end ñu génne nag mu daal di fay amal ab concert inédit concert bu jéggi boo xamante ne tubaab yëpp daal di yéemu ci moom yemu ca waaye itam mu daal di bàq ki nga xamante ni moo di way juróom bu jigéen ba ajaratu Kiné Diouf Ajaga mu daal koy woy ba jooy mu doon mbir boo xamante ne mun nañ ne jooyloo na ku ne euh, sur scène ba tax na rek li nga xamante ne moo xew Allemagne jéggi na a firndeel gën a wane li nga xam ne rek mooy la musique sénégalaise rawatina doomu Sénégal gi mu doon yemu ca Allemagne neexoon na loon gannaaw na nag xeex bu métti am na ci diggante Adamo a ki nga xamante rek moom moo Omaro bu Waly Ballago Seck nag Waly daal di nay ñëwaat ci bile mbir yemu ca waaye itam daal dina leen di jubale ne ah, ki nga xamante ne moo di euh, Omaro bu laale ci Adamo yemu ca daal di nay kot contre ki nga xamante ni moo di euh, soxnay Adamo donc ne ko euh, Simon nag buñ ko waxee mooy te très belle mu daal di koy euh, sargal ko ñaanal ko ci li nga xamante ne mooy bile mariage ba tax na nag jamono gi Adamo lépp lu mu jàppoon rek ci métit waaye itam lépp lu mu yaakaaroon ne am na ci diggante mag moo di Wally Ballago Seck moom Wally Ballago Seck yemu ca gannaaw buñ ko invité ci benn rajo de la place fu li nga xamante rek mooy ca Allemagne daal dina yëg ci ay propos jagleel ko ki nga xamante ne mooy président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xamante ni rek moo di premier ministre bu bees bi di Ousmane Sonko nee na nañ leen may temps ndaxte Sénégal nag defar ko yombut rawatina ñoom ñaar ñi ngi soog a toog ci bopp nguur gi nañ leen may temps ndaxte ñoo leen tabbu ndaw ñu ñoo leen bëgg Wally Seck mooy xamle yi lee kàddu yemu ca na moom nag ab la dundul benn yoon politique waaye nee na mi ngi ñaanal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen bi daal di oyof lool ci boppam yemu ca nee yi nag ñoo leen fal ndaw yi ñoo leen fal rawatina projet askan wi ñi koy bàyyi xel lool fi nga xamante ne rek moom moo Sénégal nee na leen rek la ciy ñaan rek askan wi bàyyi leen xel waaye itam may leen temps tuuti rek ñu daal di installé wu ba noppi mën a satisfaire askanu Sénégal rawatina gi nga xamante rek mi koy def ci ab sañse rawatina korité bi nga xamante ne ci donc Clara démb CAP 21 nag daal dina koy toj moom Clara nag moom moo jee bàq ko kon Chéri Doro Gueye wayam bu neex boobu nag yemu ca daal dinay fecc ba kontaan moom ak Clara muy wane ni saa su nekk rek cofeel bi nga xamante am na ko ci borom këram waaye itam te bi nga xamante ne saa su nekk rek dañ koy gis si xar kanamam passeport diplomatique daat nañ koy dakkal fi nga xamante ni moom moo di Sénégal rawatina ci nguur gu bees bi nga xamante ne rek Bassirou na koy jiite Ousmane Sonko dekk li nga xamante ne rek mooy le premier ministre bu Sénégal ñi nga xamante ne ñoo ko yore woon ci nguuru Macky Sall mu di le président sortant dañ ko daal dakkal doxal ba fi nga xamante rek bi ci yenn yi ci ministre yi dootul amati képp ku ko am rek dañ koy daal di nangu ba mu set ab enquête daal di euh, moom moo di euh, Sénégal ba tey ki nga xamante euh, rek moom moo di Virginie moo di Virginie juróom bu góor gannaaw bu mu ñàkkee way juróom bu jigéen nekkoon actrice donc deux ans de cela mu daal ci taf toftal nag ki nga xam ne mooy papaam daal dina ciy topp mu nekk mbir bu méttee métti waaye itam comme lu mu wax rek nee na suñu borom mooy joxe mooy xañee moo ko joxoon yaay moo ko joxoon baay baax a baax mu yaa di yëkkati yile kàddu daal di koy posté fi nga xamante ni moo di son Instagram mu nekk ay kàddu yoo xamante ne rek mu doon loo xam ne rek jéggi na dayoo Ngaaka Blindé nag coow lu nee na cour récemment fan yi ñëpp ngi naan dafa amee li nga xamante ni moom moo di cancer ki xam ne mu di Idi am nag amul askanu Sénégal nag ne nee nañ nañu xaarandi mën na nekk clip mën na nekk projet mën na nekk loo xam ne askanu Sénégal rek lépp bu génnee dinañ gën a yéemoon ci ki nga xamante ne mooy King Baba waaye itam ñëpp di laam-laamee album ki nga xamante ne rek moom moo di Ngaaka Blindé ak Dip Doundou Guiss ki nga xamante ne mooy Ngaaka daal dina ci tontu ci li nga xamante ne moo jëm featuring bi nga xamante ne rek war na am seen diggante ñoom ñaar mu nekk loo xamante ne rek askan wi yàkkamti nañ ko lool gis Ngaaka Blindé ak Dip Doundou gis ci benn duo bu am solo solo Halima Gadji ñu gën ko xam ci Marème Dial mi fi nekkoon actrice ci maîtresse d'un homme marié daal nay def li nga xamante mooy chirurgie esthétique ay yemu ca waaye itam daal nay def ay révélation yu am solo nee na on m'a retiré seize de graisse ci li nga xamante ne rek moo jëm ci yaramam mooy Bijou yi li nga xam ne seen yaram moom Halima Gadji nag na dindi nañ li nga xamante ne rek mooy yaramam li tax mu def ko nag ay confidence la yoo moom mi koy daal xamle Aïda Samb naka ni korité bi ñu génn nag gis nañ sañse bu am solo bi nga xamante def na ko gannaaw ba mu jugee màkkatal mukaram ànd ak wujjam dem defi umra yemu ca bi toute complicité bi nga xamante ne mu nekk loo xamante ne ñëpp dañ koy ñaa euh, rafetlu tax na rek ñaareel tanta moom Aïda Samb en mode sañse saa su nekk rek muy fësal cofeel bi nga xamante ne rek am na ko ci borom këram waaye itam complicité bi nga xamante ne am na ko ki nga xamante ne rek mooy aawa yaay saa su nekk rek Aïda Samb di gën di belli ci li nga xamante ne moo di euh, toile waaye itam saa su ne bu ñu waxee rek mu ne moom Aïda Samb Aïda bu Gambien la ba tax rek jamono gi mi ngi koy fësal ci li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi euh, Sidi Diop nag daal ay leeral jëmale ko rek ci kàddu yi nga xamante ne rek moom yëkkati ko mu di Biram Souleye Diop gannaaw nag ba mu yëkkatee ay propos yoo xam ne askanu Sénégal ñu ci ëpp dañoo mer ba daal di futt rawatina rek li nga xamante ne moo jëm ci làmb jeeg nee na euh, ci gouvernement bu bees bi bu ñu xaar kër ñu tuddee ko ngénte ak làmb mu doon loo xam ne ñaawlu yile kàddu waaye ki nga xamante ne rek moom moo di Sidi Diop da cee daal di sandi ab grain de sel am ne moom moo di ministre boobee di Birame Souleye Diop déclaration boobu mu daal di def point de moo di sentiment am la mu sentir la daal di wax kenn mënu ci dara nee waaye nañ ko bàyyi rek fii quelque temps le temps que mu daal di installé wu moom mi nga xam ne ministre boobee nga xam ne la ñu dénk wàllum pétrole énergie fi nga xamante rek moom moo di Sénégal bu demee ba installé wu rek ba adéquate ak jamono gi rawatina rek dundun sénégalais rek boobaa li mu wax da koy wéyale waaw wala Sidi Diop nag li muy sàkku leen képp la may temps ki nga xamante ne rek moom moo di euh, ministre boobee nga xamante ne moo di Birame Souleye Diop muy kàddu yooyu nga xamante ne rek daal dina koy yëkkati kawteef ses sexte tournée ci li nga ne rek mooy jour Korité mu doon loo xamante rek kenn du ne guleet fii ci Sénégal dañuy faral nag di nemmeeku yile événement bu amee rek ñaawteef yi day bari waaye itam gone yi dañuy profité rek di dem ci li nga xamante ne mooy euh, lu ci mel ni appartement yi lu ci mel ni yenn villa yi ba tax na rek yenn ñaawteef ci lañ ciy daal di profité

nag jamono jii ma ngi koy daal di wéyal donc def na ci ay affiche ak yenn détails yoo xamante ne rek képp ku ci bëgg rek da ko ci daal di contacter Cheikh Niang def duo bu am solo ki nga xamante ne rek moom moo di Cheikh Niang mu di le guitariste de Wally Ballago Seck moom malien boobee nga xamante ne rek Sidiki Diabaté moo ko mettroon en rapport ak Wally Ballago Seck nag jamono jii def na duo bu am solo ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Soxu Bébé Soxu Bébé nag buñ ko waxee xel yëpp dem ci waykat bi nga xamante ne moo fi taggoon jiitu réew Macky Sall waaye itam tagg fi Amadou Ba audio bu am solo yemu ca rek ñuy fësal li nga xamante ne rek moom moo di chauffeur waaye itam ah, Sénégal mu doon loo xam ne rek saa bu génnee rek ci soxu bébé askan wi dañ koy félicité ci li nga xamante ne def na ko rawatina li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllum musique fi nga xamante ne rek moom moo di Sénégal Dieyla itam daal dinay dikkaat génnee ab tube bu am solo ci li nga xam ne mooy période tabaski bi askan wi yëpp ah, di ko rafetlu ne nañ ah, li muy génn bariwul waaye a a kontaan Mame Ndiaye Savon ca beneen wet ga gannaaw ba ko Sidy Diop na rëkkee wayal ko bàkk bu réy jamono gi li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllum dépigmentation ñu gën ko xam ci li nga xamante ne rek moom di la dépigmentation au Sénégal la muy jaay baaxul ci ay produits di ko jiiñ baaraam wala sax naam di ko tuumaal ci yenn produits yi nga xamante ne rek moom da koy daal di jaay amoon na fi problème ndax gisoon nañ ay euh, ab soxna bu nekk fële ca Touba génn def ab vidéo ci li nga xamante rek noonu la yàqee yaramam waaye nag jamono gi nag dañ koy gën a joxoñ ah, baaraam naan li muy jaay baaxul ci les produits ba tax na rek ñu ngi lancé un appel ci képp kuy jigéen rek mu xoolaat bu baax a baax a baax yaramam rek li nga xamante ne ñu ngi koy utiliser muy jëm ci seen yaram Moustapha Diop bu ri nag daal nay génn yëkk ci ay kàddu jëmale ko rek ci li nga xamante ni moom moo di ah, RTS RTS nag buñ ko waxee nag ne nañ mooy télé état waaye nee dafa mel ne dañ ko nar a def li nga xamante ne mooy télé Sonko jamonoy Macky Sall dañ ko def télé Macky Sall jamonoy Sonko ko ñu bëgg ko ko def mu nekk ay propos yoo xam ne yëkkati na ko waaye yemu ca ndax am na ñeneen ñu koy lam-laamee ba tax na rek sénégalais yi wala sax patriotes yi wala askanu sénégal lenn rek la ñuy daal di ñaan ñu def ko moomeelu sénégal ku ci nekk war cee mën sa bopp waaye buñ ko sonkorisé rek amaana dina doon loo xamante ne ndax lañ daan bañ ci nguuru Macky Sall lañ nemmeeku ci nguuru Ousmane Sonko mu doon loo xamante ne askanu sénégal mi ngi koy ñaaw ñaawlu yéen mbokk internet yi rek la ñuy laaj RTS télé kan la war a doon jërë ngeen jëf